paaka baa ngi fi mais xar mi indeeguñ ko fi kon nag danaa wax ne danaa o président Macky Sall mi nga xam ne moom ci boppam wax na ne xaritam la ay yoon ñëpp di ko dégg moo wax ko manit ànd ak moom ci campagne di ko wax ni ko dañoo bëgg ngay wax ak Ousmane Sonko ci liy doxal réew mi ak li réew mi bañ ma bëgg itam usmaan Sonko ak mbooleem koo xam ne libre nga borom sa sam xel kenn yeewu ko ñuy daje fi périodiquement di dénoncer la la la corruption nommément loolu du liggéeyu OFNAC liggéeyu politicien la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 di ko defloo lu ne lu ñaaw loo dégg du moom ñooña la te buñ ko ci génn du ca génn du génn c'est important su fekkee ne dañoo respecter les institutions jug boobu loolu waa ji bindoon ne euh, xama euh, il faut sauver le le soldat nu soldaar bi nu mu tuddati. Rayane. ah Rayane. le soldat Rayane. c'est ça mooy affaire Dreyfus quoi. Hmm. donc xam naa ko. Euh, il faut ñu dimbale Macky pour mu libéré ci la mauvais entourage bu boobaa ci la opposition bi di neexee ndax opposition bi baax mooy bii wax ak président bi te du ko corrompre. pouvoir bi baax mooy miy déglu opposition bi te du leen jaay doole du tëj seen gémmiñ du yaakaar ne ñoom ay ennemis lañ mais ay compatriotes lañ il faut que ñu reconsidérer li jaxasoo ci suñu arène politique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 benn bi moo wér benn bi baaxul fekk defaruñ ko doo doo mos a rawante Casamance mooy xoromu Sénégal mooy économie Sénégal mooy foresterie Sénégal mooy lépp Sénégal te yàlla def na wàll gi ci Sénégal ñépp a bokk waaye ñi gën a wér ñi gën a wér mooy Casamance yi man sama doom a ngi ni Salif Sadio maama alors parce que nag joolaa bu yelwaan ci feu rouge joola dafa niroo du joolaa ñaan xamuñu ñaan ji nga jigéen ñi duñ laaj dépense dañuy wàcc ci faro yi jël jël jël jël jël ceeb bi indi togg ko jox góor gi mu lekk foofu la valeur intrinsèque yi nekk kon loolu bu tardé ñu wa jàpp ne ñii dañoo bokk ci feneen foofu lañ naxee suñ bopp euh, ana livre yi jàll am na juróomi am na juróomi livre yoo xam ne dama ko bind ñett yi moo nekk nii bii mooy la jolfo dégg nga voilà wolof donc origine héritage la jolfo mooy li pël di wax olof jolfo dañu oo ko jolfo kii nag boo ko liirul doo xam wolof wolof fii la jóge ci pël xoolal bu pël ne nàgge ñu ne nag bu ne naange ñu ne nag ñu eh, eh, ne nag bu ne nange ñu ne jant ñu ne naaj bopp bu ne serembe ñu ne sëriñ bu ne neddo ñu ne nit bu ne lelo ñu ne lal bu ne sogli ñu ne soxla loolu du benn ma jël olof boobu 1500 mots français yi nga xam ne mi ngi ci biir wolof ñu di ko xamuñ ko ay mayonnaise ak pomme de terre ak carotte ak <laughs> waaw ko yooyu mille yëpp 1500 mots français bi yu jógee ci arab waaw danga nga fi gis ay alaaji Malick Serigne Bamba Serigne Babacar Sy Baye Niass ma alaaji Abdoulaye Niass Khalifa ñëpp ñu ngi fii alaaji Rawaan Ngom bi Maamulaay ak moo moo arab yi nga xam ne moo dugg ci olof moom 1300 mots la ba ci ay tuumaat ay simila ak saak bala xal ma daak xibaar ak euh, waaw mu jëm noonu rek altine talaata àllarba alxames yooyu yëpp ah rajo waaw mu ngo kon nag ak lépp lu jëm ci administration ay directeur administrateur instituteur muy dem di dem mais dañ ko war a xam man nag comme maa ngi à la may di di kii nag di bind di teg am na fi yeneen ñaar benn mooy ma vie wax naa la ko samay jaar-jaar samay jaar-jaar nag ci général de Gaulle la tàmbali waaw kon nag ci jamono yu yàgg la jaar na ci Senghor jaar ci Lamine Guèye jaar ci euh, Abdou Diouf jaar ci Ablaye Wade fii nga toog nii keroog fi la Macky Sall yaa ngi kon fii kër ñëpp la kër Sénégal yëpp la rawatina yow kon nag euh, ñi ngi bëgg organiser waat politiquement le Sénégal poli euh, opposition yi bañ a def déni de des institutions y compris l'institution qu'est le président de la République mais que l'État sache que l'opposition est pour lui comme un miroir jeeg bu seer bu jeeg bu jaarul ci seetu avant mu génn dana bëri luñ koy wakk naa ko defaraatal sa kanam geeg sa musóor gi dafa dëng donc l'opposition c'est normalement c'est le miroir pour que état bi xam ne du nii ñii la sinon dafay dal ci miir bi te fii ñu toll soxla soreetuñu loolu suñu diggante ak France dañ ko war a régler parce que France moo interdit ku bokk ci sëriñ di am benn baat ci état bi loolu France man ma lañ ko waxee ngeen xam ne xam naa ko waaw ndax damay toog académie française ma taxaw ko man di joxe ay doctorat seeni borom di di teg di fàngaañu kon loolu xam naa ko te loolu dafay dañ parce que fii ñu toll tey tey bu taxaloo nag xalifa généraux xalifa généraux sax ñu bari la xalifa général moo am bu la neexee nag ne ñaar wala ñett waaye doo àgg juróom ñooñu tey bu jàmm amee ci réew mi ñoom ñoo tax am na ci ñoo xam ne yóbbanti nañu di wax affaire Ousmane Sonko tudd nuñ ko nag tudduñ ko xamul lu ñu wax ne nuñ ko tuddee laalaake ma ne xalifa général ñu ne Ousmane Sonko laalaake loolu mooy ku ko laal da ñu yooyu waaye kon ñooñu ñoo yore ñooy les les gouverneurs de la paix kon ñooñu ñoo yore réew mi réellement kon buñ nee seen duñ ko laal seen kenn du ko laal y a problème mais loolu dañ koy wax waa Paris parce que loolu xajul ci bopp waa Ndakaar léegi ñu dëkk Ndakaar loolu xajul seen seen diggante xaj moom bu mënee baw boroom a koy ne kuti rek mu réglé waaw kon nag usmaan dangaa ñëw ci diggante ñaari waxtu te àjjuma ji farata la te ñëpp lay déglu ndax am na foo jaar avant nga ñëw fii am na fooy jaar boo jógee fii mais fii rek moo fi rond point fii rek ngay toogee ci ban euh, siis boo xam ne bërki démb lu fi Macky Sall la jóge te it maa ngi ñaan yàlla nga ngay ne moom mu nekk lu normal ngay wax ngi réew mi muy jubbanti ne lii kat bu ma ko Ousmane woon loolu du ma ko def ba ba yàlla lay def li nga xam ne am na ci alxuraan laa joo ne ma nga daanoo mafuula mu ne am na loo xam ne yàllaa koy def waaye nag buñ topp gaañ yi nga xam ne dañuy fekk jéeg buy waaj a duggi ñëw toog ne ko damaa xiif jéeg bu duggeegul mën naa joxe mën naa joxe añ voilà c'est-à-dire yow li ngay dox ak fa nga jëm ak jàmm joto ko waaye nag bu la kenn fakkastal bu la kenn tega lay dégg bu la kenn gaaloo say tànk ba nga ba nga daanu ndax ku daanu doo too waaxu say paa na nga ko doxal sa bopp boo tegee sa tànk fa nga koy teg ne la wóor ni du kàmb du ndëgg sa du lenn waaw man mii di wax ak yow nag man sama yaay shérif la sëtu yonent bi la mën naa robu Cheikh Tidiane dafa ma ne ku ragal nit te ragal yaar dafa manqué hmm. Hmm. man nag bu fii ñu toog alhamdulilah gisaguma nit ku ma ragal pourtant dugal nañ ma kaso jaar nañ ma ci jaar-jaar yi yëpp waaye taxul ma ragal doomu aadama ma ragaloon doomu adama du ma wax ak yow du ma lay toogal fii du ma la oo du toog ñu lay jéem a néewul doole ma taxaw ne <laughs> te wax dëgg yàlla booba juróomi dërëm yow ma jox euh, taxul xëy na sax maa la ëpp ay juróomi dërëm waaw waaye boobu moo doon part maa ngi so sot bu ma ne sama yoon neeku ci seen diggante déedéet kon maa ngi sot déedéet kon nag usmaan mbir mango jërëjëf euh, asalaamaaleykum ñu ngi nuyoo ñi fi nekk ñëpp ba commencé ci suñu papa suñu kilifa Ahmed Khalifa Niass ak uh, waa këram yi fi nekk yëpp soxna Umu ak ñi mu àndal. ak yaayu Cheikh Amadou Bamba yaayu Cheikh Amadou ak collaboratrice am yi ak uh, sama jumeau ki ma maaseel. Hmm. Euh, nga xam ne moom déplacé wu na fan yi la ñëw ba kër ga boobu lii lépp euh, eggagul fii di nuyu sa collaborateurs yi ñoom fay fay moom mi ngi nee na mi ngi waajal cere bi nee naa ko nag ma ñànk temps ma gënal di nuyu ñëpp daal di kontaan trop ci teew bi ñu fi teew tey ak ndaje gi ñëw ak suñu délégation it ñoom doyen Alla Kane Alaaji Malick a Jéy ak euh, Soxna Mbène ñoom Jibi Guèye Euh, Moustapha Sarré ñëw dox tànk goo xam ne la ci jiitu tànku ngërëm la tànku cant la te di ko dox ci foo xam ne euh, li ñu boole dafa bëri wax na ko léegi plus ñuy waxtaan plus ñuy gën a gis sax ay lien yoo xam ne dem na ba ci lien wu famille ci wàllu diine rek ñëpp xam nañ sama digganteeg na ak Medina Baye muy diggante goo xam ne ñoo ma soppal seen bopp intégré ma boole ma ba tey su may dem Kaolack defe naa ci sama dem yu gën a neex la bokk waaye waaye moom dafa dépassé dimension boobu kese moo tax ci discours am euh, leader politique bi moo gën a feeñ te leader politique boobu la ñu seet si ndax euh, événement politique dafa am ci réew mi moom en tant que leader politique mu am ci taxawaay boo xam ne ñëpp gis nañ ko génn taxaw jël suñu défense jël ci ay engagement araftu it te wax na ko léegi loolu ku ragal du ko def waaye da ba mu koy def def ko ngir parparloo daf ko def parce que dafa ja jàpp ni jaay doole am na tooñ am na moom muy acteur politique buy xeex ngir ay principe doublé d'un d'un guide religieux mënuñu woon yaakaar taxawaay bu wuteeg booba kon ñu ngi leen di gërëm bu baax ci sama tur ci sama turu famille parce que li am du attaque politique kese waaye attaque privée la samay soxna sama wayjur samay mbokk ñëpp seen tur di leen gërëm bu baax di leen gërëm ci suñu turu parti politique nga xam ne moom it am na ci taxawaay boo xam ne waaye de delà de l'attaque privée attaque politique la woon aussi di leen gërëm ci turu ñi taxaw ñëpp ci ay mouvement citoyen ay parti politique ay citoyen ordinaire waaye di leen gërëm ci turu peuple sénégalais bi parce que li xew dafa engagé woon peuple bi yëpp bëri na ñoo xam ne génn nañ taxaw ne lii du jàll du ñu ay militant Ousmane Sonko waaye ay principe moo taxaw ñu jóg kon ñooñu seen tur ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di dellu di naqarlu toujours lii nga xam ne rot na ci ci ay bakkan muy lu ñu métti ñun ñëpp nag te loolu su doon am nañu 100 ci détermination mun naa ne multiplier na ko par 1 million parce que benn hommage rek la ñu mën a rendre ñooñu mooy principe yi taxoon ñu jóg di xeex ñun ñu mottali ko ba fa ñu tëdd ñu gis ni am na jeexital ci senegal kon ñu ngi leen di gërëm bu baax yow ak sa njaboot ak sa parti di wax nag ni ñëw fii toujours ni mu nekkee nii dafa am plaisir bu rëy buñ ci am parce que Ahmed Khalifa Niass ñoo ngi ko doon suivre boobu duggaguñu ci politique mooy ko xam ne kenn nattablewul dimension intellectuelle am maa ngi koy wax sànq bi ñu weetee nii balaa may dugg politique depuis ay année 2009 tey sama ordinateur su ma ko andi woon am na benn chemise bu ma ubbi tuddee ko Ahmed Khalifa Niass lu bëri lu muy bind ci ay contribution ay articles maa ngi ko wax léegi benn bu bindoon ci finance internationale ma toog ne waa góor gi moom lii lépp fu ko xamee donc ñëw seet si ku mel noonu nga xam ne ci wàllu xam-xam xalaat ak xel li amul kenn koo xam ne di nga am xel ñaar ci senegal c'est toujours un plus muy loo xam ne it am nañu yaakaar ni dina ubbi bis relation ak collaboration ndax saax maa ngi koy tooñ ne ko nangul lañ la di patriotisme yaay bàyyam ci Sénégal ndax deux deux mille nga créé parti askanale dàkkantele ko patriotisme ma ne kon soo ko revendiqué ñu ñëpp dañ koy nangu donte bi ñuy créé parti sax du woon ci logique concurrence waaye maa ngi koy tooñ léegi ne ko man li ma ci xaw a métti rek mooy boo xoolee fichier parti politique yi mën nañu trois 300 am na ci au moins 30 yoo xam ne patriote wala patriotisme mi ngi seen seen seen sigle. waaye ñu gëm patriotisme dañoo war a daje. dafa jot ñu construire suñu propre modèle. wala ñu reconstruire ko parce que amoon na nag ñàkk fi woon modèle bi ñuy doxee nii dañ ñu ko imposer. teg tegal ñu ci bi ñuy jox indépendance ñu wéy ci ñu nit continuer kon dafa jot ñu tabax suñu propre modèle te idéologie it ñàkkul woon fii Afrique ndax ñoom seen Thierno Souleymane Baal ak euh, li ñuy wax charte du Mandène ku ko lire da xam ni ñoo jiitu woon foofu tey ñi ñu imposer ay idéologie ci wàllu xalaat kon woote patriotisme li muy tekki rek mooy ñu dellu si suñuy valeur construire suñu modèle ci base boobu te weesuwul tamit ñu jiital bëgg suñu réew donc bëgg suñu bopp ci lépp dama wax toujours ni bëgg naa sama bopp tekkiwul ni bañ naa la amul réew bu dul dox nag ci patriotisme dañ ñuy nax rek tubaab yi ba date bu soriwul sax ñoom ñëpp patriotisme lañ doon doxee bi ñu demee ba xam ni mënatuñu jëriñu lu bëri ci patriotisme parce que mondialisation dugg na te il faut ñu dem noot ñeneen ndax leen ci la ñu ne léegi dañu làq patriotisme bi bañ koo fësal parce que suñ ko fësalee ñeneen yi dinañu yeewu ci loolu ñu àndil ñu nag ay ouverture ak ay accord de partenariat nag ubbi leen seen économie def leen lii def leen lële ñu ñëw jël li ñu bëgg ñun yóbbu kon ñun ñi xam ni naxe foofu la ne ñun ñëpp dañoo war a daje ci loolu nga xam ne mooy patriotisme ñu ngi ci am ubbeeku bu doy ñun suñu waa parti liggéey ceeg tous les patriotes te mënuñoo am xel ñaar ni moom patriote la ndax xeex na ko ba def ci kaso boobu peut-être ñun juddaguñu wala suñu juddoo it ñu ngi doon jàng dox wala jàng ram kon kilifa gi loolu moom maa ngi ko wax ci sama turu parti ak ñi ñuy liggéeyal yépp dinañ ci sawar lool daje ceeg yéen liggéey ci leneen nag li ñu wax lépp wax nañu ay dénkaane yu ama am solo ndax saako wax na ma ni am na piège yu ngeen war a moytu mooy conflit inutile contentieux yu bëri yoo xam ne amul njëriñ loolu dugg na suñu nopp ak yeneen ak yeneen yoo xam ne wax na ko fi te expérience la ko waxee dégg nañ ko te waxtaan yi ñuy yi ñuy seqaat xam naa ne yu bëri na ci génn kon kontaan nañu trop bég nañu trop ci ñëw gi ñëw fii ñun nag Sénégal rek lañu am moom la ñu bëgg amuñu beneen nationalité Sénégal lañu gëm ba ci gëm ko ci service public damay wax ni li ëpp ci samay doom tey lycée lañ amul sama benn doom bu egg niveau collège te nekk école privée parce que dama gëm man service public sénégalais am naa lu ma demee fay ci li eh, école yi gën ci école yi waaye samay doom ci lycée public yi la ñu ne bu baaxee ñu ànd ak moom bu bonee ñu ànd ak moom ndax ñun produit école publique boobu lañ moo tax mënuñu bañ a nekk di républicains ab républicain du bëgg le cycle démocratique ñu interrompre dellu gannaaw la de cinquante ans wala sax avant indépendance loolu duñ ko musa duñ ko musa sooke duñ ko musa favo favoriser lañ bëgg rek mooy réew mi ñu xam ne ñun ñëpp a ko bokk réew mi tekkiwul ni dañoo fal nit moom moom réew mi parce que toujours dama naan concept buur sa war nañ koo xoolaat parce que ñun amatuñu ay buur buur moom moom dëkk bi dañ naan alalu buur mbedd buur et cetera ñun ay président de la république mooy boo ko bëggee nekk dangay ñëw saraxu sénégalais yi ñëwoo imposé wu doole da nga ñëw ne dénk leen ma am naa programme keneen ne am naa programme keneen am askan bi ne yaa ñu doy waaye ci kaw programme ak li constitution maye ci droit ak li mu limité ci say prérogatives kon réew ñi ko bokk ñëpp ñoo ko war a séq ñu war a am sañ sañ nag mu am ñu bokk ñu ne bokkuñu gis-gis ak ki yor réew mi ñooñu waruñu leen persecuté dañ leen war a bàyyil seen cër ndax ku yor réew rek te am ko ci alternance démocratique dañ laa bàyyi moo tax nga mën koo nekk waaye su doon ñi fi nekk dañ ne kenn du fi wax déedéet kon doo nekk président loolu it ànd nañ ceeg yéen d'accord nañ ceeg yéen dañu jàpp ni réew mi moo war a ubbeeku ba kenn ku ne respecté sa sañ-sañ ak sa droit ak sa ak ak sa àqi morom te lépp ñu teg ko ci constitution ak loi réew mi loolu dinañ sawar dox ci jàmm la la réew mi bëgg boo gisee keroog mu wax li ma wax ci jàmm Casamance ba ñaan ne ci juróom parce que du lu ñu war a xaarati te du lu ñu régler ak ay kano kon loolu ñu nit am nañ ci ubbeeku bu doy parce que bu jàmm amee Casamance Sénégal décollé léegi ndax la fa yàlla def ci possibilité yàlla yàlla rek ko mën wax nga ko léegi ci ressource forestière ressource agricole ressource halieutique suuf su nangu taw gu bëri léegi ñu gis fa ay ressource minière kooku dañu war a fexe ñun ñëpp jàmm am sénégalais bu bëgg liggéey ak foo mën a jógee nga mën a dem installé wu liggéey ànd ak ña fa dëkk ngeen liggéey mu doon naataange senegal loolu am nañ ci ouverture pour liggéey ceeg ñëpp ba solution boobu ñu am ko définitivement. kon vraiment bég nañu ci visite bi waxtu wee ñu tënk waaye mënoon nañ ci wax ba guddi comme tey bésu àjjuma la te ngeen ni ngeen it kilifa diine war a jiite jumaa duñu duñu duñu xaabaabal ci wax ji waaye di wax ni bis tey jàppale ni seen seen collaborateur ci politique ngeen bokk gis-gis bokk idéologie euh, tal waxtaan bi mën a collaborer dans l'intérêt du Sénégal jërëjëf. waaw loolu nangoonte nañ ko yéen journalistes yi su fekkee ne tànk jàmm yi may dox yàlla sotal na ko da ñëw fii fekk saal bi benn taabal la fi nekk ak ñaari sees bi Macky salu toog ci bii Ousmane Sonko toog ci ñu waxtaan pour réew